ne porte ouverte yi du ko def ndax école bi ñu gën ko xam léegi kii Yannick moo ñu dimbale tabax bâtiment bi indi ñu fi pour jàppale xale yi amul doole journée ouverte yi porte ouverte yi du ko bëgg def pour école bi gën am impact ci milieu bi ñi gën ko xam parce que bâtiment bi baax na résultat résultat yi baax at mu nekk macha on a commencé par 11 28 115 mi ngi ñëw ndànk-ndànk loolu moo tax ñu bëgg a économique gën nit ñi gën ko xam. journée bi dana am conférence comment aider son enfant à réussir na ngay dimbali sa doom pour njàngam fël benn doctorant en sociologie que ñuy wax ci saw Tamba moo koy def à 15 heures. bëgg nañu parents d'élèves yépp ñëw fii ndax seen njariñ rek lay doon ndax ki tabax école bi seen sago benn élève du du échoué pour moom ak pour ñun aussi élève bu nekk am ñi ngay doxaleek moom pour mu réussir man yàgg naa ci jàngale mi dem naa fi trent 39 ans nekk naa instituteur mu jëmale ko PS proviseur intérim censeur problème éducation mooy école bi dafa dëppoowul ak aada mi ak langue ñu jàngale élèves yi du ñu ko gaaw comprendre loolu la grève yi moom ñu def ko jàngalekat yi si anam yu mucc ayib pour ñu def seen liggéey loolu defe naa dana si baax jàngale mi du élèves rek ko amee maître si lu ñu bokk loolu bu ñu ko defee dindi abri provisoire yi dindi école yi inondé yi toppatoo jàngale yi ñu gën fonk njàngale mi ak njàng kat yi def na école bi dana suqaliku pour ñun def nañu parrainage madame Yannick parraine daw des élèves presque elle a donné beaucoup d'argent pour parrainer des élèves malheureusement am ñi xam jën parrainer mais doow ñu ñëw waxtu ba parle di ñu daw jang yoy sax mo tax de sa bac ren xaw a on autour de 118-115%, mais année on est à 104%. quatre a am parrainage année bi mais nous parrainé won daaw tu ñu am mooy ñu moins mom ni d'accord pour parrainage mais parrainage suivant l'assiduité la ponctualité à une bonne moyenne est motivé excellence mon kenn bañiko waye pour une excellence du li ngay wax sa làmmiñ da nga koy jëf ba ñu gis ko loolu mooy excellence lu ko tëb rek bind école d'excellence yooyu propagande rek mais man tant que amuma 98 pour cent du ma ni sama bopp excellence dama ni maa ngi góorgóorlu rek quand j'aurai 98 pour cent d'admis au bac BFM là je peux taper la poitrine pour ni man je suis dans l'excellence. li donc, dénk euh, suñu waajur élèves yi mooy ñu gën a nemmeeku école bi ndax école bi une école la une école la tax seen quartier la ñu ko defee école bi su doxee ba dox am xam sax mën def quartier bi bibliothèque pour habitant quartier bi ñëw di fi lire seen doom yi bokkul école fi jël francs am na marketing am na électricité am bâtiment am na couture am musique yépp yàlla indi na ko ku bëgg a des yooyu nga ñëw ñu contacter def emploi du temps des programmes, nga ñëw loolu mais du gratuit nag ñu koy jàngale ñi bëgg na ñu jox leen dara en tout cas ñun ñu fay l'école à la carte nous faisons l'école à la demande des des parents d'élèves exp bu ñu waxee lu ñu bëgg ci école bi ñu namm ci école bi bu ñëwee ñu d'accord ñu pour defal leen ko ndax ñu nekk ñu pour ñun du fi nekk pour suñu doom yi bëgg a jàng te am difficulté pour njàng école jàng normalement Eh, loolu defaron len li nga xamantene bo boo gisee ma xam ko yanik moo tax mais amal na ma njëriñ te njëriñ boobu noonu laa bëgg a partager ak samay rakk parce que du may ne ak ay élèves affaire yooyu noonu moi je vis avec les enfants relation grand frère et petit frère lay dund ak ñoom te loolu noonu ku koy def foo ngay faciliter mun a jege nit ki déglu ko xam lan lay dund ci ay difficulté pour que mun ko jàppale nit boo ko bëggee jàppale boo ko jegewul rek munoo ko jàppale

bu fekkente ne dañuy woo parents mi tamit ñu mun a waxtaan ak ñoom mun a am système d' accompagnement bi nga xamante ne mooy loolu parce que école bi boo gisee mu nekk fii nii c' est pour ñëpp ñu mun a réussir si jàng te doole yemul comme gars yi la ñuy wax am na doomu ministre yi fii nekk donc waruñu mun a nekk ci reproduction boobu noonu baa doolay continuer doon néew doole je dirais pas baa doole mais néew doolay continuer di néew doole et puis borom alal yi comme gars yi ni ñu koy waxee ñu continuer di am seen alal. violence booy wax waxu violence bon il y a une anam comme ni reproduction sociale comme Pierre Bourdieu la euh Des len li nga xamantene li nga jot a sa cœur ak yi nga am yoy non ngey bëgg reproduire au milieu public mais les les ñeneen ni dañ leen di juger comme violent mais pas violent man noonu pas ko gisee parce que ni tant que jegewoo woko nga xol benn ki jugement ngay paraître ci Kanama, mais comme euh, Marshall Rosenberg lu ñuy wax bon la violence n'est que l'expression tragique d'un besoin non satisfait xalé bi amna len li nga xamantene loolu la soxla loolu la jotul satisfaire mo waral mo violent pour ñu mëna bay xel ci mom kon bo gisé kenn ki nga xamantene ne mu situation bobu non bo jégué boko jégué waxtaan ak mom xëy na mun nga koo jàppale pour mëna changer motivation bobu non loolu moy objectif principal bo gisé moom may ñëw fi ni dañu may sollicité Yannick di bon pas un espère ou pas mais peut-être sama expérience de vie dans la vie associative le muy d'Undou, parfois même dans la communauté des fois, médiation couple bi nga je ne mu ngi tas nga def médiation le couple boobu nous ñu war retrouver wu bañ a tas kon nous noonu ci diggante ak xale ba ben, je pense que boo que nar a dund comme petit frère et grand frère du conseil de l'année discussion bi nga xam parce que le plan amul communication rek day temps lu bëri quoi mais bon, amee communication waxtaan fu mu am rek je pense que ça peut contribuer sur beaucoup te bàyyi jabel instant mi école bi loolu mooy objectif principal am bañ a am discrimination ñëpp nañu yemoo amul diw le patron le la diw doomu badol la wala ay clan l'ol noonu yëpp soxloo ñu ko fii ñëpp nañ dund ben famille ben harmonie comme ça ñu pouvons avancer parce que réussite aussi bu c'est dans l'épanouissement de l'esprit ak espace bi ngay dundee espace physique bi monde l'environnement je pense que ça est là c'est un milieu où il y a la sécurité parce que fini tout est en sécurité y a ay moyens yi nga xamante matériel didactique yéen ñëpp yéen a ngi koy gis yi nga war na mun a jàppale kon choses violence morale bobu ñu ñu ci violence morale bi je pense que ça peut aller parce que souvent violence morale il y frustration une tax dem confrontation physique ay détails mais en tout cas nous, ñu nañ dan lay pour ñu éviter le maximum possible. Ce qui m'a inspiré, c'est qu'ici il y a des locaux, des bons professeurs, des nombres d'élèves limités par classe. 10, élèves, 15 élèves, 20 élèves. Donc de donner toutes les chances à n'importe quel enfant de pouvoir réussir. Bien sûr, nous voulons l'excellence. Mais si un enfant a des difficultés et qu'il faut recommencer à la base, eh bien, on recommence à la base pour lui permettre de réussir. C'est ça qui est important. Sinon, ça n'a pas de sens. Écoutez, il y a tellement à faire dans l'éducation. Moi, j'ai quand même un petit point qui me paraît important, c'est de faire découvrir à la population africaine, globale même, mais sénégalaise, et celle de Thiès. Thiès, ils connaissent un peu l'artémisia à Il y a 400 000 enfants qui, meurent chaque année du palu. C'est inadmissible. Alors que le bon Dieu nous a donné une plante qui s'appelle l'artémisia à que la pharmacie utilise pour faire des médicaments, mais on peut se prévaloir, de se prémunir, pardon, du palu avec une tisane d'artémisia. Non, non, j'utilise pas les moustiquaires parce que moi j'ai déjà utilisé les moustiquaires, mais quand je mets un moustique en même temps dans mon moustiquaire, je suis sûr d'être piqué. <laughs> mais par contre, la tisane, elle me protège. Elle me protège et si jamais elle m'avait pas protégé elle me guérit et non seulement elle tue le parasite, mais elle tue aussi les gamétocytes. Donc je ne veux pas refaire une, une crise de palu euh, deux semaines ou trois mois après, grâce à l'artémisia noire. Et ça serait tellement important que ça se sache dans tous les pays d'Afrique. Amener un écran, c'est amener quatre ordinateurs, c'est faire en sorte que les enfants puissent déjà aussi apprendre par eux-mêmes, parce que ces vidéos que vous allez pouvoir regarder tout à l'heure, c'est interactif. Si l'enfant prend la télécommande, il peut répondre aux questions et l'ordinateur va lui dire si c'est juste ou si c'est faux. Donc ça rend possible une formation individualisée pour des enfants qui ont des retards dans certaines matières. En français, en calcul, en histoire, en, écologie. Et c'est ça qui m'importe. Moi, je veux que chaque enfant réussisse. Ça ne m'intéresse pas de dire on est excellent en prenant juste les meilleurs du, monde ici. Non, ce qui m'intéresse, c'est que chaque enfant du quartier, chaque enfant de l'environnement ici, puisse avoir accès à un enseignement de qualité, avec des professeurs motivés. Et les professeurs sont motivés. Ils sont payés moins cher que dans le public, mais quand même, ils donnent d'eux-mêmes. Et ça, je trouve fort. Moi, je voudrais que la population de Ghent, de se considère comme des ministres. Les ministres mettent leurs enfants dans les meilleures écoles privées. Et moi, je les invite à les mettre ici. Parce qu'ici, ils vont avoir une éducation de qualité. Et théoriquement, ils vont réussir. On va tout leur donner pour qu'ils puissent réussir. Et franchement, c'est ça qui est important. Et qu'après, ça devienne une école tellement reconnue pour la qualité de l'enseignement, pour la qualité aussi de notre médiateur qui vient nous aider, de faire en sorte que les autres écoles fassent la même chose et qu'on réussisse partout. Mais je sais que les enseignants dans le public font déjà d'énormes efforts, mais les conditions dans lesquelles ils sont sont insupportables.